dellooti man pap ta jug jéema way màggal gu mag gi dix safar gi ma dellooti man pap ta jug jéema way màggal gu mag gi dix safar gi fa njaareem la doore bis bu mag bi te mooy màggalam gi dix safar gi sant yàlla la woote buur bu mag bi digal laa sant gi te mooy ku di na jug waaj bis bu te mooy màggalam gi ndamam laani ci ku dib gor na jóg waaj ko xam nek safar moo ko may jàmm ji ayaa neex mana fa xaasal saxru jëf la laaj moom jugal moom fexe jëf sa yow murit bi loo si jëf du doy ëllëg nga koy xam bu yow mal xiyaame sëriñ bee ñu doy mbir mi ndigal la fexeel ba jëf sa am lu mën a doon safar la miiraasu jot na jaay lépp def si sant lu war laa dix-huit safar gi Seex Fallu ko woote fa tuubaale digle nu teeru fa gan yi dix-huit safar gi nañ leen ko waajal tataaral si kër yi te yeesal si gox yi dix-huit safar gi nañ leen di sajji di bellil kanam yi di taaral mbir yi di waajal safar gi na sant gi yaatu na mbégte mi yaatu na xol yépp feex yow si weeru safar gi nañ leen di jàng quraan di jàng doxal xasiida waajal safar gi cey bis bu mag bi moom ñëwaat na le doon si weer wi mooy safar gi yow mi xamul moo di yowmal ga sabti la woon si weer wi mooy safar gi xarajtu yowma sabti saamini lansar li xidmatil muxtaari fii sahri safar xamal na nam ga ak noonam yaa mooy sant gu mag gii di safar gi màggal gi sant la xamal murit bi ñëw leen sant le ko moom boroomam ab sant yàlla moom bawul ko am xel la fexel ba am loo si dugal murit bi loo si dugal murit mu yokku faw rawante la fexel murit ba raw ku la si raw raw la ba faw faw yow doo ko dab te ëllëg safar ji qur'aan a wax asaabiquuna saabix ulaayika màggal gi moom jëf la bu wér màggal gi moom wër na gox yu mag yi Europe Afrique ñëppay waaj dis bi safar bul fàtte Amérique ndéem Asie ngi ñëw nit ak ji neeg malaaka ñëppay ñëw gàcce gu rëy nga ne si réew mi xëy bis ba di tey nga naan man gan laa fi daa mën a saa ku muy mbégam na ñëw moom sant le ma 18 safar fa tax ta baaba sukri fii saxri safar teg ci dalal xel yi may ñu liberté kuy gor na jug sant le ko bisam bi mi tax ñu nekk ay gor bay feetu xaaral ma jug te jublu nag si berne yi màggal gi berne la moom 18 safar naga gileem jarul yéem safar la xar ak béy bul xeeb ginaar safar la koppin pitax naat ginaar safar la na ñor neex te teel a ñëw safar la soo su tufe macarona safar la na ñor neex si bis bi moom safar la vermicelle petit pois couscous ba na saf neex te teel safar la marineek misweek di saf ndawal ga tegal gan ñi ñu tànn moom safar la ceebu jën ceebu yàpp safar la cereng ndawal maxalu rimba safar la laaxu kafe gu foor mat leen yaa mburoo keek si ndekk yaa safar la njorum soow meew zirin yu sedd yaa salaat da firwi yu neex safar la ataaya naana pom ak banaana fanta koka bisaam moom safar la mango kokok ananas safar la bintoog rese Sprite safar la ndoxum keren ndoxum siber safar la ju sell neex sedd lool safar la xarama xat man Babacar safar la di ñaan si barkeb serafal safar la xarama xat mu man Babacar safar la di ñaan murit yi jëkk moom safar la sëriñ Moussa Kane ku màggal bis ba aj Makka umra am nga ñoom seen yool ba sëriñ Moussa màggal bis ba aj Makka xarak ba na gàj giléem lu ñëw def ko sebis ba xeb ko lool te bul ko naw lëgë xëteeki xëtiiroon na lépp ñëw uwaa kanaara pitax na lépp ñëw bul fàtte jën yu mag yi ak yu ndaw yi saafal yu mag yi daa yu ndaw yi ci bu ñu la subala ceebu jën moo war a jiitu ku ko togg moyli li gën bu guddigee nga togg kuskus ak cere te ñeex ma it na ëpp ak sos bu bëri ku nekk xool ba ko sa neex mu reer ca ba suur nga tàngal mais mu neex ñu naan ca bu gan ñi ñoom daloo ba xëy nga xam ne mooy bis ba seggal kafe yow joxaane ak meew mu neex ku nekk naan ba ko sa neex mburu ya it na sa daat def lu neex lu mel bër ba sokola ba formaas ba kor na boof waaye ndekki li na doon lu bëri lool ta neex woyof bum nii na niin na doon salaat bu bëri soos ta diw ga yam ak pom bi teer ca ginaar ak i nenam te boole kook ay sase ndox yu sedd lool si ngoom alif yit bul ka fàtte baax na lool séddale leen ko jox ku nekk ab paquet sun xewloo ba noppi dajji seen peket buñ sa yeyee ba dallu boori yoor yoor nga andi caakari yu sedd lool tafar ku ne potom buñ sa xewloo ba noppi buñ génn nan fa toog ba añ ya noppi tooga si ñoom di leen bégal di waxtaan waxtu tusubaar ba buñ julee ba noppi nan dallu tuuti fekk añ ya noppi nga yekk añ ya bool bu nekk na am yàpp xarak bëy ak bu nag si ay koñom nga jël ginaaru lëmm teg ca digg ba fop nen ya teg sa soosu kaani bul ko ba na nen ya wër ginaar ya soble wër ko ndawal goñor ba boo ko laalee xam ko te buñ ko yóbbe bool bu nekk na sa ñaar ba ñett daal sukk buñ añee ba suur na ku ne am ñetti kanet ak ñetti pom ñetti banaana yit ku nekk naka am gasel yebul ko fàtte màngo xaal na ñëw ak njaru soome xeetu zi yi nan di teew attaaya mboolem faso yi nan bu si jeex beneen ñëwaat anaanaas it na ñëw bu takkusaan jotee palaatu caaf yi ak beñ yeeg bon ak mat leen yi na teel a ñëw ànd baraada kafe yi ak xeetu mbiskit yi nga jox ko gan yi ba noppi toog si ñoom te yaatal sa kanam di leen bégal fexeel ba sak bañ buñ ko xam lun yite woo it bu fa nekkee andi bu dee amul gaawal nga jug dem wuti ko ku bëgg a dem fu xamul it nga yóbbu ko boo ko xamee boo ko xamut nga laajte ko waxtu timis bul fàtte soosu karavet ak ay fataaya boole leen si ay palaat ak biskareem teg sa salade de fruits ak xeeti tàngal yi nga jox ko gan yi bu jotee ñeen daa di yàq reer yi pasta mi macarona ñooy door reer yi bool bu nekk nang sa def yàpp gëléem ak koppinuk lëmm kanaara na sa dem jëlal uwaaya tas ko wet gu nekk ba noppi def ca mayonnaise bam jekk dal di ko jox gan yi ñu reer ca ba doyal bu raxasoo nga daal di leen di jox gazelle bu ngeen demee ba min wi jot fekk nga saaf ay xëti ron ak ay pitax yu neex ta duuf ak ay axati yuñ saaf boole koo pombiteer ak tuuti soos pitax ya yit na saf ji njeer nga jox ko gan yi kon sëriñ bi bég si yow kon nga làq bépp may ak bépp yiw xamal ne màggal gi lépp lañ si def ci xeeti berle des na la am li nga si def yal na nu ahmadul xadimi jekkuloo dix-huit safar musol ñu yëg sig yal na nu ahmadul xadimi jekkuloo dix-huit safar musal ñu yëg sig féewaloo muhammadul masant sey mooy ki ka way asmah li badrin yal na sar si moom di way mooy dellu ñaan murit yi